mbokk yi ñu leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay baax yéen a ngi topp chaîne chaîne Rafah TV ñu nekk ngeen ñi siiwa di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ñëwoon fii nag tey ci marché Ocass fekk si fi liggéey bi nga xam ne moom la président Macky Sall def muy pavage yi defal ko fi commerçant yi nga xam ne ñoo fi xëy si saa su nekk ñu daal di dugg si biir rek ma ànd ak sama caméraman ñu daal di dugg si biir xool gars yi naka lañ ci lan moo ci seen xalaat ak nan lañ gisee liggéey bi nga xam ne Macky Sall def na ko fi dootu leen sonal kon damay daal di ànd sama sama caméraman rek daal dem si biir. sëñ bi naa def. ñu ngi sant bi naka la. Balla Ndiaye. Balla Ndiaye ñu ñëw fii ci marché Ocass fekk la fi ñu laajte ci président de la république muy Macky Sall pavage yi nga xam ne def na ko ci biir marché Ocass naka nga ko gis. waaw rafetlu ko lool nag wax dëgg yàlla rafetlu na ko lool ndax léegi bu solo la ndax ko xooloon marché bi démb ak tey xam ne am na xar kanam bu yees. kon nag ñoo ngi rafetlu liggéeyam bu baax a baax parce que dëgg yàlla ku xool ni mu ko liggéeyee xam liggéey bu am solo ci liggéey bu bu bu garanti la ndax am na traité wàll te page bi macha allah wax dëgg yàlla kon daal li li ñaan daal mooy képp ku ne ci marché bi ñu sàmmaloon na ko bu baax a baax parce que nit ki bu liggéeyee la ci ëpp solo mooy sàmm gi waaw te liggéey bi rafet na trop macha allah kon li ci mooy sàmm rek moo des kon daal ñun ko ñun ñun ko liggéey teg ko nan ko organiser te jéem koo sàmm bu baax a baax parce que liggéey am na solo lool. waaye ndax amoo leen ci benn gàllankoor ci liggéey bi biñ koy ta waaw premier bi nag xaw na métti parce que nit ki bu la defaral mu mel ne mu defar day ne ku yàq euh, ci wàllum daj beeg euh, toj beeg ak euh, xàll mbedd yi ca mbedd ku ko bëgg a defee il fallait que nga nga nga daj jéem a xàll ay mbedd yu baax pour ma defar li nga bëgg a liggéey loolu nag premier bi da nga jàpp ne ak yàq la ndax bari na place yoo xam tey bu ñëwee si buñ fekk nga def sa pied ñu dajji pied bi dindi ko wala ñu la da ngay andu nii parce que leen soxla milieu bi soxla il faut que ñu ko euh, day metti parce que boo xoolee yii nii avant ñu koy defar xawoon na métti trop li président liggéey li ci des nag ñi fi nekk ñoo koy sàmm ndax liggéey nag bu la ko defaree yow mi ci nekk ci ci marché bi yaa war a sàmm liggéey bi li ko war mooy liggéey defal la pawas maanaam yóbbu la ci beneen xarkam bi yees nag léegi li ci des nag mooy toppatoo ci wàllum sareet yeeg euh, mbuus yu ni lépp Ah, du ñàkk yoo xamante ne tey dana am euh, tey yoo xamante dana jumtukaay yoo xam ne bu waree mbuus da nga koy def bu dee saret dana mën a xam fu ñu limité bu fekkee oto dana mën a xam fu ñu limité bu ko defee ñu xam ne tali bi kat paas bi pour tànk tax mais du oto pour yàggaay bi wala saret di fi jaar wala di fi gaaree yu demee noonu yëpp danañ ko bàyyi xel bu baax a baax incha allah. merci beaucoup merci beaucoup ziar nañ la bu baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax. lan ngay wax li nga xam ne nag mooy président de la république. waaw ñun dañ koy ñaanal bu baax a baax dañ koy ñaanal bu baax a baax di ko ñaan li mu bëgg ci dëkk bi la ko suñu Muntaxa waxoon rek maanaam li nga bëgg euh, ak ak li nga yéene ak li ngay liggéey xam nañ ko baax waaye lépp seeroo ko Sëñ Tuubaa rek waaw loolu moom ñun daa dëkk ñoo ko rafetlu bu baax rawatina marché bi ñu nekk incha na nga def. maa la. tur bi Fat Bintu Sow la. soxna Fat Bintu. waaw ah, gis li nga xam ne moom la fi mettre président Macky Sall def muy pavage yi nga xam ne def na ko ci biir marché Ocass yow ñu fekk la fii ngay jaay fonde ak laaxum soow macha allah naka nga gisee liggéey bi. waaw liggéey moom rafet na lool ñu ngi koy rafetlu lool di ko ñaanal suñu borom mu yokk ko te dem ba li mu bëgg ci Touba gii suñ borom defal ko ko ci barke sëñ Touba dëgg yàlla macha allah ndax buñu masaana jaar ndox meeg yëpp macha allah ku fa jaar say ri yàqu gis nga ko ni ma toog sama table di jaay ku oto jaaree bu sedd ma def dara ñu ko si ñaanal suñu borom nag mu def ko yeggali métier ak liggéeyam te yàlla may ko benn troisième mandat ci barke sëñ Touba man loolu laa koy ñaanal. mu mel ne dañ ngaa gis nga tiim ay ndox ah, defal na la canal nga xam ne boo paree ci ngay tuur ndox mi wala. canal yaa ngi fi bu ma tourné rek dara fay tuur mu ngi nii tool ma pare rek daa rax samay bagage dem du ci moom macha allah moom dëgg yàlla am macha allah moom macha allah ci kaw ci kanam. man jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf. dañoo kontaan ci biir marché bi rek ndax bu nawetee ndox mi dañu daan rey ñun ñi nga xam ne caaf rek la ñu liggéeyee waaw kontaan nañ ci Macky saala lool waaw liggéey bi rafet na kontaan nañ daal bu baax a baax. kontaan ngeen laka na lan ngeen koy ñaanal. ñoo ngi koy ñaanal kay fanu gudd ak wér gu ak réew mi mu mën ko yor rek. Ah, léegi nag ñu gis ne def na fi ay canal def fi ay territoire lan ngeen def nag bu liggéey bi pare naka ngeen def ba ay tilim dootu fi nekk. ñoo ñun kay buñ sañoon tilim du fi nekk ndax ñun fii la ñuy liggéeyee noor ak nawet suñu caaf lii lañ lañ ci la ñuy dund ci la ñuy teral suñu gone yi waaw buñ sañoon nag moom dara du fi am ben tilim tilim du fi am bu soobee yàlla. sëñ bi maa ngi sant ba alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. waaw maa bi naka Abdoulahan Mbaye mi sëñ bi. sëñ Abdoulahan ñu gis euh, li nga xam ne moom la président def si biir marché bi naka nga ko waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla ndax euh, changé na marché bi tax na ba yu bëri changé na surtout demu demukaay bi ak dikkuwaay waaw. mu mel ne pavage yi euh, bari na ci yoon yi daanaka xaaj bi yëpp defar na ko li ci des si sànc bi baree tut mu def fi ay canal def fi ay territoire nga xam ne lépp daanaka mel na ne jàppandi na ci ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum buret. waaw loolu moom am na moom. maanaam eh, canal yi daal lan am nañu ni mu xaw a des waaye bu doon te côté bee ci ginnaaw moom yëpp def nañ fa canal mais biir gi moom soxlawaat nañ ko nag loo xam te dina tax ndox mi bu ñëwee gën a mën a jàll loolu na xëy na am na noo xam te romb na mais am na luñ ci man a dab dabaatal xanaa ñu dimbali ñu ci loolu rek ba defaraale ko moom yeneen canal canal yi waaw yokk canal ci biir marché bi surtout nag li jëm ci biir marché bi waaw mbaa bu liggéey bi noppee naka ngeen di taxawee fii loo xam ne ndox dootu leen sonal ak i lu mel ne suuf loo xam waaw loolu moom ñu ngi ciy liggéey ndax bu dee côté bi jël nañ ñoo xam te ni bu mooy ñooy bale côté bi ak di àndale yi ko war a fàtte yëpp loolu moom bu soobee yàlla dinañ ci baax moom loolu du am benn problème. kon ngay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir. waaw xanaa gën a góorgóorlu xam ni ku ko ñi ñi dëkkul ci réew mi ci dëkk dëkkul ci dëkk bi ñooy defaral sëñ bi ñun ñi dëkk ci dëkk bi tamit dañ ko war a defaral ñu nit waaw dañoo war a defar sëñ bi gën a gën a gën a sàmmonte ak li war a def li nga xam te mooy defar liñ fi def ba pare ndax investir dafa jafe kon buñ ko defaree dañoo war a fexe ba ñun ñu sàmm ko di ko toppatoo waaw. macha allah jërëjëf sëñ Fall tur bi naka la. Cheikhouma. Cheikhouma ñu gis euh, liggéey bi nga xam Macky Sall def na ko fii ci biir marché Ocass muy pavage la lan nga ci lan ciy wax. Ah, xanaa di ko rafetlu rek euh, di ko ci sant tamit ndax euh, biñ ko ko waxee xam naa ni gàntaluñu mel na ni liggéey bi tamit bari woon na ay coow ñu ngi ko doon def tamit ci jamono ji métti lañ ko commencé muy jamono nawet. xam nga ni nawet moom liggéey bi mel ni yombut waaye mel na ni suñu borom def na ci tawféex ndax ku dugg ci marché bi da nga xam ni sànc yi mi ngi sori da ko xool tamit da nga xam ni xar kanamu marché bi soppeeku na kon loolu moom dañ ko ci sant di ko ci gërëm ndax liggéey bi mel na ni liggéeyu mairie la woon mais xam nga mairie Touba ni mi doxee euh, moo tax it bañ ko jotalee président bi mu recevoir magi marché bi ñu euh, jox ko projet bi mu dëkk yitte da amaan tamit projet yi mën naa bañ a yem fii incha allahu taala waaye daal li ci mën di xew daal mooy moom mi nga xamante ni ci loxoom la bàyyi ko jaare ci loxool euh, magi marché bi euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm euh, di wax ak sama mbokki commerçant yi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd mi mooy fépp xam ne paafas bi jaar na fay ku ci man wut poubelle sa buntu place ngir lépp loo xamante ni mbalit la ñu ko ci jéem a def pour mbedd mi gën a man di set bu ñu demee ba libre ñu chantier yi Euh, ñu koy dénk daal suñu mbokk commerçant yi daal ñu taxaw ci kenn ku ne wut poubelle sa buntu place ah, di set set li nga sa buntu place la moom ngay fexe ba mi set buñ ko defee kenn maam mbalit du fi nekk waaye buñ ko deferee nag bakku ni euh, fu waaye neex sa sotti mbalit boobaa tamit dootul amati njëriñ def na lu mel ne wàllum territoire def na loo xam ne canal la bu ndox mi do ñëwee dootu leen sonal ku ne xam ne it commencement liggéey métti na naka ngeen doon jànkonteel woon na lu ne ñi yoroon sànc bi lu ne ñu ngi ko doon dégg waaye fii amaana bu ñëwee moom yàlla dinañ def tawfeex ndax bu la nee yére bu la neex boo ñëwee mën nga ko xëysee du am benn jafe-jafe da mën ngaa bañ a xuus sim ndox mu mel na ñun nag Touba la ñu dëkk ku defar dañoo war a defar ku defarul dañoo war a defar kon nag bu ñu demee ba président defaral ñu lu mel ni yaakaar naa ne bu paree coow waru cee am war nañ cee mën a jàppale suñu bopp bu baax a baax ut ay oto yoo xam ne dinañu mën a tuural mbalit yi ut ñoo xam ne dinañ mën di bale ñu leen fay weer liggéeyu mairie la mais ñi nga xamante ni mooy kuréel bi nekk fii ñu tuddee ko Aziz ñoom taxawuñ ci marché bi benn yoon lépp loo xamante ni luy defar marché bi la rek ñoom ñu ngi ci taxaw bu baax a baax di di nuyu le président Gallas Kouma ak ñi mu àndal liggéey bi ñëpp ndax ñoom lépp loo xamante ni luy defar marché bi di jëmale commerce bi kanam ñoom ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax ndax Touba dañuy wax ne royukaay la kon ñun dañoo war di def loo xamante ni ku ñëw dañu ko war a royu ci ñun waaye waruñu def loo xamante ni danaan war ah, wax na yàlla lii de waruñu ko waruñu ko waruñu koy gis si dëkk bi daal fu mu Touba fu war di mën toll war nay set ku ñëw ni war nga fi mën a gis xar kanam boo xamante ni war nga fi mën a fekk ñoo xam ne bu ñu ñëwee deen ak yi ndax marché bi fi mu ne ni ko fi dugg si rek na eh, ak léegi nii ñi ngi sant bu baax euh, président Macky Sall vraiment ci lii mu nga xam ni defal na ko commerçant yëpp euh, waxuma la assis waaye képp kuy def commerce ci biir réew mi rek euh, mën na wax ne defal na la ko Euh, ba tax na euh, wax comme noonu nga ko waxoon amoon na ay daan na am ay taata ak ay euh, ay mbalit ak xeeti tilim tilim yëpp mais yàlla bu ñu yàlla dimbale ba lii pare loolu ma yaakaar naa dootuñu ko gis. parce que vraiment liggéey bi macha allah mucc na ayib tege na ci yoon jaar na fi nga xam ne seen tur daal ni marché bi léegi deet na am ndox par rapport ak na ko xam ne doon na ko amee. xam na liggéey bi moom vraiment jaar na yoon jaar na yoon te vraiment rafet nañ ci njort daal. taataa moom foogatu ni deet na ko dees na ko fi amat. taataa foogatu ne di ngeen ko fi gisati. kon moom tali bi dafa def niveau quoi. ñu ko liggéey am na foo xam ne ni fa lañ bàyyi nga xam bépp ndox bu kii foofu lay waaj jaar ci canal a ne noppi na naka ngeen di saytoo biir tali yi nga xam ne ay luy mel ne mbalit wala ndox dootu fi am. yëpp bu yëpp waxtaan nañ ci def nañ ci ay réunion ñun ak euh, commune bi. ba jàpp na ni su paree dinañu accompagner ci wàllu googu ak autorités yi nga xam ni autorités yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi muy maire wala préfet ñëpp waxtaan nañ ci ñoom def nañ ci ay réunion bu ñu paree bu chantier yi paree ñu accompagner ñu ba nga xam ni euh, yooyu yëpp daan fi am dootu fi am. voilà nga xam dootu am benn désordement dootul am benn désordre daal nga xam ne lépp day tege ci yoon loolu waxtaan nañ ci ak commune bi assise waxtaan ci commune bi ay yoon yoon. Euh, di nuyu président Fallou Khouma au passage dama ko fàtte parce que mooy suñu kilifa vraiment euh, jéego yëpp euh, euh, fu mu egsi fii rek loxoom a ngi ci ñu ngi koy nuyu bu baax au passage ak équipe bi mu àndal ak commité directeur bi ak ñëpp ak membre assis yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax. kon daal mu mel ne bëgg nga si tali bi nga xam ne moom la président ñëpp ci bëgg ñëpp ci bëgg vraiment président kay ñu ngi koy sant ko gërëm comme ni ko xalifa général def rek am nañ sant gu mag a mag a mag ci moom gërëm nañ ko di ko ci ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla lim si jublu lépp yàlla ko ci yàlla fay.